asiru malabayi nasiru Le complexe islamique Khadim Rassoul de Touba sant yàlla sunu borom di julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di fat sunu nuyoo teg ko ci loxol Cheikh Mouhamadul Bachir mu yeggale ko ca sunu kilifa Cheikh Mouhamadul Muntaqa ak mbooleem njabootuk Cheikhul Khadim ak mbooleem njabooti mag ñi àndoon ak Cheikhul Khadim di nuyu gan ñu tedd ñi di nuyu eh, borom xam-xam yi nga xam ne ci daara yu kawe yi lañu ñu bàyyi ko te toog ci jataay bi Cheikh Mouhamadul Bachir bala ñuy sori dañuy fab sunu ziar jox la ko nga jotti lu ko sëriñ bi ci ñaari xew-xew yi dal ci kaw mu di nelawu sëriñ Bachiru Aslo bu sëriñ Moodu Awa Bal ak nelawu alxaaji Sidi Lamine Ñas bu suñu maam alxaaji Mouhamadou Khalifa Ñas yàlla na yàlla xaru leen àddina bisu tey bi di xëytil weeru gàmm ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk dëppoo juróomi fan ci fukkeelu weer ak ñaar ci atum ñaari junni ak fukk ak juróom ñett kaa ngi fi bis la boo xam ne su ëllëgee bu gëstu mboorum lislaam ak di waxtaane mboorum yoonu murit bis bi kenn du ko fàtte bis la boo xam ne dañ gën a feeñal gën cee yeesal gën cee mottali benn ci naal yi nga xam ne bi seen biir ñu ci Touba da naaloon muy tasaare xam-xam mbokk yi xam ngeen ni doy na sëkk seere ci ne lislaam fonk na xam-xam li nu bokk xam ne ñépp muy laaya ji njëkk a wàcc ci alquran mooy iqra sunu borom dañoo digal nañuy jàng door a jëf ndax xam door a jëf mooy gën a jub nga jëf ba ba noppi door a xam lu ci moo tax yàlla ne faalam na laa ilaha illa allah soog caa teg nag wastaghfir li dambik wa lil wal muminat te ki jàng ba xam mooy xam fu muy teg tànkam da koy yomb wal yaalama alladina utul ilma annahu alxaqu min rabbihim fa yuminu bi fa tuxbita lahu qulubuhum ñi jàng ba xam ñooy gën a góorgóorlu ci jox yàlla àqam innama yaxsha allaha min ibadihi alulama jàng du doy xam-xam du doy moo tax yàlla digal sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko saa soo xëyee dell sàkkoo xam loo xamul woon wa qul rabbi zidni ilma yonent bi sunu borom ràng na ko dara ju nekk ak maqaama mu nekk waaye yi mu ko ràng benn gënu cee rëy téere bi mu wàcc ci moom ak sunna si mu ko roos wa anzala allahu alayka alkitaba wal hikma wa allamaka ma lam takun taalam lu mu ca teg wa kaana fadlullahi alayka azima kon yi mu ko ràng benn gënu seen day xam-xam yàlla xamal ko moom itam muy xamle moo tax mu ne innama bu'istu muallima sëriñ tuubaa nag xam gi mu xam wàccuwaayu xam-xam ci lislaam moo tax ba mu tolloo ci xam xamlu da caa sonn ba mu xamee ba dajal téere yi da doon xamle waaye da caa sonn samp mbooloo muy xamle yëmu ca ku mu gis ñu ne boroom xam-xam la mu teral la sagal la fonk la yëmu ca nag mu bind ci ay téere loo xam ne kenn xamu ko ku dul yàlla mbokk yi adduna munta jag ci lu dul xam-xam àllaaxira tam jag ci lu dul xam-xam moo tax sëriñ wax ne wal taalaman bi ann ilman wa amal huma wasilata saadati ajal moo tax imam Xasaali wax na ne ku taxaw naan yàlla nee na yonent bi nee na te jàngoo diine da nga sànq jaamukati yàlla ni waaye ku jóg tam di faj nit ñi te jàngoo médecine da nga faagaagal jaami kon xam mooy jiitu jëf moo tax sëriñ bi ne wal ilmu afdalu axi min al amal wa ussuhu fa faaza man lahu xasar mbokk yi ñépp a war a jàng amul góor ak jigéen mag ak ndaw moom la sëriñ bi naan wa kawnahu saadata wa shubaani wa niswaani kon ñëpp war a jàng te suñuy jàng tam lépp lu am njariñ la war a jàng lépp luy jariñ ci àdduna ak ci àllaaxira kal aqli wal fiqhi wa kat tasawufi wa kulli ilmin bi manafia yafi moo tax mag ñi àndoon ak sëriñ bi xam gi ñu xam ne xam-xam yëteel na ko moo tax bay ci seen waa sëriñ Mouhamadou Moustapha mi ko njëkk a wuutu moo taxawu moo taxawu njabootu sëriñ bi tolloon ci xamlu ba ñu xam la war a xam waaye xam ngeen ne sëriñ Mortala taxawaay ci xam-xam kenn du ko nattable maa ngi tudd taaw tudd caat kon sëb naa ñu baree baree bari sëriñ Cheikh Gaynde Fatma taxawaay ci xam-xam kenn du ko nattam sëriñ Moustapha daaray maam Jaara ci Poroxaan ko nattam waaye nag mag ña leen jiitu moom kenn waxaalewu leen maam Thierno Birahim li mu jëf ci xam-xam sëriñ Dame Abdourahmane Lo sëriñ Mat Lamin Gaye sëriñ Mbàkke Buso sëriñ Maxtaar Bintaloo sëriñ Madem moom Njaareen sëriñ Mouhamad Lamine Diop Dagana sëriñ Mor Mbay Siise sëriñ Njëmbu Siise sëriñ Ndaam Buso Mbar sëriñ Mahmadan Koso sëriñ Mbay Buso Paraam ak sëriñ Abibu Mbàkke sëriñ Chouaïbou nag jàng ak jàngale rek lañu xame sëriñ Saliou moom mooy daj dëpp bi jumaay Tuubaa ba mu noppee la ci sëriñ Fallou Sam bàyyi sëriñ Bousso Ilimaan bu fiy jàngale ak sëriñ Daam Bousso ak alxaaji Mbàkke Jaxate alxaaji Mbàkke Jaxate ba tey jii sax xëy na dem jàngale ci jumaa ji sëriñ Abdourahmane moom sëriñ Abdou bàyyi seex sëriñ nag moom daa ko duus su ma limee du ma matal waaye dañu wax ne maa laa yutraku kulluhu laa yutraku julluhu loo xam ne soo ko limee doo mën lépp sooy bàyyi itam bul bàyyi lépp moo tax ñii ñu tudd ak nag meneen mbooloo mu dul jeex jëf nañu lu bare bari ci xam-xam waaye mbokk yi fii ñu taxaw moom képp ku fi taxaw war nga bàkk njaag kan mooy njaag mooy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Serigne Abdoul Ahad moom ca xol bu rëy ba yéene bu rëy ba pësteef bu rëy ba fii moo ko fàkk ba mu ko fàkkee moo ko làkk ba mu ko làkkee moo ko tàmm yàlla na ko yàlla fay dañoo ko ay leer Serigne Mountakha lii nag naka jekk bëgg-bëggam yéene mooy tasaare xam-xam ba mu demee nag ba toog ci jotaay bii mu toog gis na ne Tuubaa gën naa yaatu njaboot gi gën naa yaatu kon nag daara yi war naa gën a yaatu te tuut tànk yi saa suñ xëyee ña ngay doñ doñ ci lang ci ay oto mel ni ñuy màggali Tuubaa te dañuy jàng ndax néew fi néew moo tax mu laxasaa yu fas yéene lëggéey daara ji teg lépp ci loxoom jëwriñam ji mu Cheikh Mouhamadou Bachir waaye mu tegaat lépp ci loxoom doomam muy Serigne Thierno Mbacke nii moom Serigne Sora Bachir kon Serigne Mountakha li mu tàmbali yàlla na ko yeggale yàlla na ko daroo daroo yàlla na ko ubbi te mu ànd ko ak moom kon waxtaan bi ñu lay war a tëdd ginnaaw bi ñu dégloo alquran karim sunu doom Mouhamadul Bachir lay nga xam ne fukki at ak benn rek la am juddoo Tuuba jànge Tuuba te daaw moo naafira ci ramadan alquran ba mu jeex ren moo naafira ci ramadan alquran ba mu jeex fukki at benn rek la kooku ku ko am da ko war a te ñi toll ni moom.